salaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci Seneweb TV ak point seneweb.com bienvenue am nañu mbégte bu baax euh, tey ci jeudi bi mu di dernier numéro yamoo ak trois décembre 3 euh, janvier à pour moi ñu leen di rek daal di wëyal ak li nga xamante ni moom moo di seen émission ultimatum euh, ni ñu koy rek defee wëy ak li nga xamante ni dafay ñeel actualité suñu actualité nag li ko marqué ni ki démb si ngoon ba tey ji ñu xëyee ko moom moo di qualification bu équipe nationale du Sénégal ci Coupe d'Afrique des Nations édition bu 2021 euh, bi nga xamante ni ñu ngi ko euh, def ci atum 2022 bi euh, kon Sénégal fi mu nekk nii ñuy xaarandi ana kan la nar a dajeel ci final bi ñu natt dimanche incha allah loolu waral nag ñu fas yéene cee daal di waxtaanee ginnaaw kon li ñu daal di qualifié démb ci wàll wi ak perspective yi ñu dara ibil duñ ci ànd ak kenn ku la Leyti njaay moom mi nga xamante ni ancien international sénégalais la bu ñu koy xool nag jaana ca olympique de Marseille jot na joué fi nga xamante ni également bu ñuy euh, xool ci Amilcar Cabral bokk na ci euh, ki nga xamante ni jot na cee rek daal di bay waaram ba jël ci euh, ab ngañaay mun nañ ko wax waaye jaar na ci yeneen i tamit bërëb ci mel ni Ajaccio ak yeneen yoo xamante ni moom tam dina ko mën a fësal tax tey jii ñu fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moo di actualité bi laataa ma ko bàyyeek yéen muy nuyu damay nuyu Babacar Kébé am mbégte bu baax ñu janoowaat bàyyi Aïda maa ngi lay nuyu du nuyu suñu invité ainsi que mbokk internet du Sénégal yi nga xam ne saa su ne ñoo ñuy bàyyi xel seen émission bu soir bi nga xam ne moo di ultimatum teewati nañu am mbégte gu mag mag fas yéene partagé ak yéen ab diir li nga xam ne moo ñëw wàllum actualité tey nag ñu dal ko wundu ci li nga xamante ni am na solo lool man lu jëm ci wàllum tàggat yaram ci kanam ñu dala doxal ay de on mi ngi noonu ma ci rek daal di yokk ginnaaw Ajaccio FC le Mont Suisse fa la jeexalee li nga xamante ni moom moo di tàggatoo ma am nañ mbégte bu baax lay ci ñu dalal la ci euh, Seneweb ak Ultimatum waaye merci Aïda maay kontaan trop si invitation bi di nuyu Babacar di nuyu ñi ñuy euh, ci site bi di yaakaar lépp luñ ci wax euh, dina am njëriñ pour euh, ñi ñuy seetaan. Mm-hmm. incha allah rabbi li ñuy euh, fas yéene daal di kon waxtaanee mooy li nga xamante ni démb suivre nañ ko mu di match bi doxoon diggante Sénégal ak Burkina Faso Sénégal daal di ci gañe trois buts à un mais un match laborieux match boo xamante ni bu ñuy xool ci deuxième tour bi Sénégal xaw na cee wane boppam tey ba mu yóbbu ñu qualification en finale analyse ban ngay def ci match bu démb bi. bu. bu on va dire match bu ñu doon xaar la ñu la ñu gis démb. Mhm. sauf que mënoon na gën a metti sax euh, par rapport ak li ñu gis euh, soo xoolee si ni ñu duggee ci compétition bi euh, sur la point de pieds la ñu la ñu duggee on va dire. Mhm. après le plus important a été fait mooy nekk ñu qualifier. Euh, Euh, second tour yi. Mhm. après depuis que ñu euh, qualifié second tour yi li tax ñëpp am yaakaar fu mu nekk nii nekk dañuy dem bu mooy nekk équipe bi day monter en puissance. Mhm. donc euh, loolu moo ëpp solo tey ci ci match démb bi ñu gis gis nañ sax bañ nekkee en difficulté équipe bi. réagir na. et que loolu moo tax tey ñu nekk ci continuité boo xam ne yaakaar naa ne buñ ko téye foofu incha allah. yàlla mun nañu dimbali pour que ñu am ndam mi nga xam ne moom la ñuy xaar depuis depuis le temps. Babacar. waaw euh, ñu gis démb euh, benn changement tactique de jeu par rapport ak. quart de finale ak li nga xam ne mooy huitième ak quart de finale même onze de départ moom la Aliou conduit mm-hmm. ñi ñëw démb demi finale mu amal benn maanaam deux changements benn au niveau du milieu terrain beneen bi ci attaque bi loolu qu'est-ce que ça montre exactement. mooy boo xoolee xam nga Cheikhou dafa nekkoon euh, euh, sur un coup de suspension on va dire moo taxoon euh, Pape Gueye dugg dugg place am si. Euh... si huitième de finale bi. Mhm. après gis nañu ne que voilà Pape Gueye aussi il a def match bi nga xam ne moom la sénégalais yi doon xaar. Mhm. et puis ba ba Cheikhou di ko euh, suppléer après Cheikhou tamit ba mu ba mu duggee wane na ne que tamit euh, titulaire la ci équipe bi. Mhm. donc moo ñëw délivrer équipe bi euh, en huitième. donc pour man changement boobu c'était c'était normal par rapport ak euh, résultat wu équipe bi en tout cas ak ak continuité bi ñu nekkoon. après après si kanam euh, Boulaye on savait que aussi dafa nekkoon ci euh, moment yoo xawoon ne dafa xawoon difficile. si mm. ay performance am. et puis ñu dégg ne aussi dafa amoon ay difficultés dafa amoon ay blessures ay gênes euh, yoo xam ne nii moo doon moo ko doon teree mu nekk à cent pour cent. Mm. donc choix boobu tamit ak bamb bi mu dugg. Mm. donc je pense que ne nekk choix bu choix bu baax la woon quoi. ci question tactique bi nga gisee ne machine bi ni mu doon doxee huitième quart amul benn changement mais n'empêche. am na li nga xamante ni moo jëm ci wàllum changement ci ay joueurs am na mais tactique bi resté maanaam intact également vivacité bi la même chose collectif bi également la même chose loolu ban façon liggéey la boo xamante ni coaching da koy da koy amal ci wàllum effectif. xam nga coach euh, day am profil day am ay idée yoo xam ne euh, comme joueur day am profil day am euh, tey fixation yoo xam ne da xalaat na si loolu ngay mun a basé wu pour pour di gagner ay match. Mm-hmm. gis nañ Aliou si préparation yi muy mu essayer benn 3 5 2. Euh, après bàyyi ko après ñëwaat ci 4 4 3 trois bi nga xam ne moom la tàmm di jouer. Mm-hmm. donc fi mu nekk nii loolu la ñu gis ne ne que moom si lay basé wu en tout cas pour am résultat yi nga xam ne tey moom mu ngi koy am. Mm-hmm. et ça très intéressant xam nga boo xoolee tamit suñu équipe ñun bi ñu am. loolu moom mooy suñu suñu suñu classement suñu fort loolu la quoi mooy mm-hmm. cest dire am benn point ak ñaari joueurs yoo xam ne di dinañ mun a développer ci côté yi quoi. donc on peut dire que coaching gagnant bi ñu doon wax euh, moom la ñu gis dem. non depuis depuis le début ah Alioune man euh, bokk naa si ñi nga xam ne tey gëm naa projet bi muy def depuis le début euh, gagnant après xam nga tey coaching dafa metti mooy nekk par moment la ñuy mën a di remarquer sa sa liggéey mm-hmm. parce que si ay détails lay nekk mais boo xoolee moom ci ay résultat am depuis depuis mu nekk fii il gagne mm-hmm. donc loolu moo ko andi tey ci classement bi mu nekk au niveau Euh, euh, de la CAF FIFA et tout ça donc euh, loolu laa xalaat ne nekk moom moo ko permettre tey mu. mu ñuy représenter comme il se doit. te te bu ñuy xool gis nañu euh, ci euh, match bu démb bi tamit euh, li nga xamante ni moom moo di joueurs yi bokk na ci li ñu indi moom moo di vivacité bi maanaam tëj match bi ci côté ñi nga xamante ni moom moo di burkinabé yi ba mënuñu woon accéder quand même ci camp yi comme il fallait n'empêche gis nañ ni match bi 0-0 la la la lañ ci mujjee woon alors lan moo nekkoon ci au début difficulté bi équipe bi fa nekkoon la wala. waaw en fait xam nga match couperé yi comme euh, philosophie Aliou mooy nekk euh, bañ a jël bi depuis le début ñun loolu la ñu remarqué quoi mooy nekk euh, du découvrir day day day dekk ay base yu dëgër. après ñu jouer suñu ay coups à fond. et que loolu c'est c'est très intéressant fi mu nekk nii léegi li ma seetlu léegi ci équipe bi mooy nekk. Euh, dañu comprendre quoi dañu am maturité boo xam ne peut-être amuñu ko woon. ci mm-hmm. ci compétition yi passé mm-hmm. donc tu vois que ne nekk même suñu nekkee en difficulté sax les joueurs sont sereins et que dañuy am tout le temps énergie bi nga xam ne mooy tax tey ñu ñuy dem di chercher résultats yi xam ne moom la ñuy am. Mm-hmm. waaw ça démontre également benn benn mbir boo xam ne jot nañ ko nemmeeku ci équipe nationale bu Sénégal bi mu doon joué ak Burkina Faso l'attente maanaam patience bi nga xam ne ñu ngi ko doon footballé sànq yaa ngi wax question peut-être mën na nekk ne. expérience bi mën na ci di jouer parce que Sénégal gis nañ mu am benn patience bi mais décalage bi ñuy gis ci wàllum jeu individuel bu ci mel ni bu Sadio Mané benn côté gis ko ci ki nga xam ne moom moo nekk ci ginnaaw également mu di Kalidou Koulibaly ñaari joueurs yooyu devant et derrière noo gisee parfois seen changement ak tamit ni ñuy indi philosophie de jeu boo xam ne day boole ñu presque ci jeu bi. waaw xam nga ñaari joueur la yoo xam ne tey ay cadre lañu. boo xoolee si club yi ñuy joué respectivement mooy Liverpool ak Naples. xam nga ak ci ginnaaw Edouard Mendy. Mhm. c' est des joueurs yoo xam ne tey mondialement am na ñu vécu boo xam ne tey moo leen di permettre peut-être ñoom ñuy ñuy yóbbaale ñeneen ñi. Mhm. mais c' est très intéressant après après voilà loolu mooy tax tey ñun. Mhm. de l' extérieur en tout cas ñuy am euh, sérénité. man depuis le début ñu bëri dañ may reetaan dañ naan ne nekk Leyti euh, dafa xaw a. pessimiste ba ma ëpp euh, dafa xaw a optimiste pardon ba ma ëpp <laughs> mais man dama yaakaar ne ne que voilà dañu am li nga xam ne gëj nañ ko am quoi mm-hmm. mooy nekk ci ay difficulté léegi dañuy gis équipe bi muy gën di progresser mm-hmm. loolu c'est très intéressant mm-hmm. avec des novices yoo xamante ni ñuy dooroo ñoo xam ñi ngi ci seen première fois ñu participer ci CAN bi euh, tey ñu ñu ñu ñu tamit marqué tey ci CAN bi pour une première. Ah. ak équipe bi nu ñu nu ñu yaakaaree woon ni loolu sax amaana mënul nekk lu mu mën a démontrer. novice ouais, on va dire que Bamba Bamba la ñuy wax. Bamba Dieng euh, Pape Matar Sarr c'était son premier match. Mmh. voilà démb la soog a dugg. mais xam nañ ne ñooñu ñooy futur équipe nationale ah. après xam nga dafa am nu muy doxee football. tey am na coach yoo xam ne dañuy bëgg tout le temps di. Euh... di di di di di préserver seen ay ay jeunes. Mhm. ay jeunes joueurs c'est-à-dire euh, di leen protégé on va dire. Mhm. parce que si match yu mel nii. Euh, de l'extérieur da xalaat ne dafa dafa yomb émotionnellement. Mhm. mais bon am na am na maturité boo xam ne des fois daf koy soxla pour que joueurs yi mun a exprimer mais tant mieux li ñu gis parce que gis nañu Bamba bu mu duggee xam nga wane na ne que euh, il est prêt pour jouer. e que Matar tamit euh, Pape Matar si match euh, yi mu jot a joué en tout cas xam nañ ne ne que on peut compter sur lui. Nampalis gis nañ ko tam taxawaay bu mu ah, am. démb jëwam bi c'était tellement déterminant ak euh, changement bi nga xamante ni indi na ko ci ci match bi. c'est un très bon joueur Nampalis. je pense que ne que non impressionnant on va dire sax. parce que pour ne pas xam nga exagérer. Mhm. joueur la boo xam ne ci ay performance am dangay gis ne. Mhm. tout le moom joueur de devoir ko donc ah. si post bi muy jouer souvent da ngay soxla joueur boo xam ne mm. dafay régulier si lépp li muy def c'est-à-dire si récupération am et si placement am surtout mm-hmm. da gis ne tout le temps dafay euh, dafay ñëw di soulager défense am et que premier relance yi tout le temps da ngay gis ne Nampalys euh, am na facilité boobu mm-hmm. mais ñun boo xoolee nag Sénégal ñun mosuñu manqué loolu boo xoolee Pape Alioune bi fi nekkoon mm-hmm. après euh, voilà Gana et tout ça si ay meilleurs joueurs am ñoom am nañ profil boo xam ne tamit mun nañu mun nañ def loolu waaw am na également ce performances au niveau de Leicester City des na lu bëree bëri ba presque jot nañ ko écarter sax bëriwul ay compétition mm-hmm. mais une fois mu ñëw au Sénégal c'est comme si que presque toute la saison mu ngi nekkoon di def ay compétition naka lu joueur war a mën a amee réussite boobu ci temps bu gàtt bi booy ça prouve yaa ngi wax lu am solo ça prouve que ne nekk mentalement c'est un joueur qui est qui est prêt parce que tey boo xoolee ne nekk euh, régulier wul en club et que mu ñëw di am performance yi en équipe nationale mooy nekk joueur la boo xam ne nekkul di nelaw si ay lauriers am mm-hmm. donc il est te fi mu nekk nii xalaat naa ne nekk ak kan bi mu nekk di def nii. Euh, su ko les sœurs euh, xoolee bu baax joxul waaw joxul li nga xam ne moom moom la moom comme gënd. keneen ku gën a mag dina ñëw jël si ko dina ñëw jël si ko lay sër. waaw à noter également que y a un Nigérien à côté Ndindi Wilfried Ndindi bi nga xam ne moom ñoom bokk benn poste mais lu ñu mën a wax am na benn travail boo xam ne staff bi ci lay bokk. moment yi nii yow en tant que jour bantaxawaay taxawaay nga gis ne moom la staff bi di jox le jour de sorte que réussite bi ni mel mu mën koo amal ci ni mu gën a gaawee. mooy staff euh, équipe nationale nga bëgg a wax. waaw effectivement si si mais mooy temps de jeu bi ñu koy jox et que confiance bi ñu koy jox. depuis mu dugg si équipe bi da ngay gis na nekk euh, Nampalis maintenant titulaire lañ ko mën a. Mhm. considérer parce que il a ah, démontré waaw ah. il a vraiment. Mm. Euh, démb boo xoolee ba mu ba mu gaañoo sax si première minute yi. Mhm. ñu bëri xaw nañu am inquiétude parce que bëgguñu mu génn suñu équipe instant yi. Mm. Mm. par rapport ak li muy li muy joxe. donc c' est c' très bien pour lui et que voilà résultat bi nga xam ne booy moom la ñu. mérité il fallait tamit conserver que mu bañ a am benn carton boo xamante ni mën nañu gàllankoor ci te prochain match bi te on a vu que quand même. loolu euh, démb waaw ah. Aliou Cissé sax bàyyi na si xel ba génnee na ko ci ci ci ci à moment pour ñu mën a préparer euh, match bi nga xamante ni moom la ma mën ñu jëm. effectivement Aliou il gère bien ses ses euh, mm-hmm. xoolee. parce que ñun boo xoolee suñu ni ñu commencé compétition bi dafa xawoon compliqué moom mm. dafa bokkoon si ñi nga xam ne dafa positif woon euh, euh, mm. ci Covid bi donc mu ngi gérer équipe bi boobu léegi et mm-hmm. nga gis ne ne que même ba démb boo xoolee si ay changement am tu vois que ne ne moom nekkul di gérer benn euh, benn groupe bu joueur mm-hmm. dafa nekk di gérer benn groupe boo xam ne tey même ñi nga xam ne ñëwuñu sax. Mhm. ils sont susceptibles de revenir en équipe nationale. pour mhm. pour am seen ay coups ñuy jouer quoi. par rapport mhm. ak mondial bi ñuy jouer ji ak euh, échéance yi nga xam ne moom moo si topp quoi. am na di am na lu ma bëggoon tamit xam. comment est-ce qu'ils ont fait ba Blatini Touré ñu ngi ko doon ñu ko doon xalaat ak. Sangara ba dañ leen encercler tellement que tey jii euh, permettre na Sénégal ba nu ñu doon gisee fukk bi Burkina doon am. dañ leen a euh, tamit téye ci ci jeu bi Euh, gis nañ même nu ma ko waxee sànq la première période était tellement dure pour les les Lions. Ouais. si milieu terrain effectivement milieu terrain bi boo xoolee Brati Touré boobu ak euh, Bertrand Traoré ak euh, yeneen joueurs yi Burkina mhm. wane en tout cas. Mhm. ay joueurs lañ yoo xam ne. du ñu ay découverte si ñun ñi nga xam ne yàgg nañu seetaan mhm. football donc c' des joueurs de de classe euh, internationale on mais Sénégal foofu ngay gisee ne ne fi mu nekk nii dañu dépassé benn cap. mooy mm-hmm. nekk euh, ci expérience démb maa ngi dégg coach euh, Burkina bi di ko wax. Mm-hmm. mais il a parfaitement raison. si expérience démb la ñuy la ñu la ñu dominer équipe bu Burkina bi. Mm-hmm. parce que c' est pas c' pas des peintres man ñoom ñu may gis ñu ñu def seen euh, performance yi ba yegg. fii Tafsuba défenseur central bi très costaud. très très costaud. te ñu ngi wax tamit implication bu Sadio maane bi ci match bi parce que on a vu vu que moom moo délivré euh, tey match bi. Mm-hmm. gis nañ il a il a percé te dafa doon euh, quand même koñe bu baax li nga xamante ni équipe bi pour que quand même mu am benn ouverture ñu mën a euh, percé tey seen ay ay ay ay camp donc Sadio Mané am na rôle boo xamante ni bu primordial bu mu joué depuis le début sax on peut dire ci ci ci match bi ba ñuy wax il marqué trois buts ak deux deux passes décisives yoo xamante xamante mun nañ ko nemmeeku ci euh, kan bi. mooy mooy comme li ñuy wax sànq rek ak Babacar moom mooy leader technique gu équipe bi boo xoolee Sadio depuis que mu commencé ñëw équipe nationale on le de jour en jour muy euh, muy progresser. Mm-hmm. muy muy gën a jël ay responsabilité am. et mm-hmm. que aujourd'hui ñun xam nañ ne ne que li ñu mun a am yëpp par rapport ak euh, équipe mm-hmm. bi Sadio da si jouer lu bari. après on a vu démb si différence bi nga xam ne nii fin temps bi. créé na ko mooy nekk a Sarr dafa dugg ci beneen coté bi. parce mhm. que tamit aspect boobu foog gars yi di ko. di ko bàyyi changer le jeu également si si mhm. bu nekkee beneen côté bële di créer tamit danger bi nga xam ne Sadio mun na ko créer euh, côté bi. mën na wàññi défense voilà day tax euh, defence bi di gën a am euh, problème pour mun a défendre si Sadio. ba ba léegi xam naa ci performance individuelle yi mais Sadio Mané bu ñu xoolee ci kanam maanaam ak ni muy projeté wu ñu gis ne bi ñu ko écarté mu nekk ailier. ci la gën a wane performance yoo xamante ni Sénégalais ci lañ gën gis seen bopp mais en tant que numéro 10 ak tamit qualité yi nga xam ne jot na ko am comment se fait-il qu'il plus à l'aise bien vrai que boobu ci lañ ko formé mooy format de métier mais lan moo tax muy gën a amee foofu benn performance bi plutôt que bu nekkee ci axe bi wala mu nekk en pointe également. waaye loolu on va dire xam nga si début bi comme li may wax sànq ñun dañu amoon équipe boo xam ne euh, dañ doon chercher quoi. Ah. ni ñu commencé coupe d'Afrique bi. bu hmm. ñëpp xoolee dañ ñëw ak ay douze cas Covid yoo xam ne sept ou huit xaw ma cas ah. Covid yoo xam ne hmm. dafay dafay am lu muy euh, lu muy wàññi si équipe. avec des absences avec des ah. absences voilà. Hmm. léegi loolu yëpp dafa taxoon tey Sadio peut-être ak euh, moom expérience bi mu am bagage bi mu am. ñu soxla ko ci milieu terrain boo xam ne nii tey dina soulager défense bi. Mhm. par rapport ak ñaari milieu yi nga xam ne tey dama gis ne nekk si suñu euh, début compétition dañ leen dañ leen demander juste. que ñu sécuriser tey suñu suñu ay arrière mm-hmm. donc moo tax peut-être euh, ñu andi woon ko comme euh, numéro 10 boo xam ne nekk dina mën a di projeté wu di di orienté jeu bi mm-hmm. mais wan nañu encore une fois ne nekk postam de prédilection ah. en tout cas si côté bi la quoi ci côté bi la également mm. waaw performance individuelle yi am na ci boo xam ne Aïda man damay mm-hmm. dégg euh, rarement ñi koy ne di wax mais liggéeyam ci équipe nationale bu Sénégal parce que moo ëppaale lu mu joué waale mooy Abdou depuis début compétition ba mm-hmm. léegi il a joué tous les matchs mm-hmm. noo gisee profil bi ni mel waaye excellent franchement macha allah on espère que voilà si continuité boobu lay nekk ba final bi gis naa ko mu def benn benn discours après le match en quart ça prouve que ne nekk ci état d'esprit bi groupe bi nekk waaye très engagé mm-hmm. après nag ça peut ça peut se comprendre xam nga tey boo nekkee équipe bu mel ni Paris Saint-Germain euh, voilà xam say responsabilité c'est obligé boo ñëwee équipe nationale plus lay nekk et ñun duñuy kontaan di rafetlu loolu trop tey mu commencé mu jël ay responsabilités am c'est-à-dire au niveau du vestiaire yi tout ça di di joxe consignes yi ngay yi muy joxe. et que leader la léegi mun nañ ko considérer comme leader boo xam ne nii tey en tout cas ci équipe bi euh, kenn mënatu ko ci génne. mais comment on peut réussir ça en tant que joueur ñëw adopté wu am benn aussi toolaay boo xam ne ñëpp lay jox benn cër adaptation bi terrain bi la juste wala ci biir vestiaire yi noonu ko nit di gagné. Euh, xam nga booy tey boo xoolee tey seen vie même à l'extérieur du terrain en dehors da gis ne ils vive très bien le la boo xam ne tey. Euh, dégg naa ay ay nouveau yu bëri yoo xam ne bu ñu ñëwee li ñuy njëkk euh, souligner mooy nekk ni ñu leen intégré ci groupe bi mm. et loolu c'est très important mm. après bu ñu la intégré noonu ci groupe boo xam ne nii tey xam nga li ngeen di représenté mm. nga am qualité yi nga xam ne moom moom la am après voilà son mental après mooy mooy mooy mooy décrire tey discours bi nga xam ne am na ko keroog. Mm-hmm. mais mais voilà c'est un joueur boo xam ne euh, il est appelé à jouer dans les meilleurs clubs du monde. un but qu'il a tellement mérité. hier gis nañ sax euh, euh, lii lii nga xamante ne d'habitude duñ ko gis ci Aliou Cissé il l'a fait dem ba ci moom. téye ko sentir que ni euh, quand même il a matérialisé li nga xamante ni moom mooy di sentir tantôt on disait que euh, ils doivent mouiller le maillot mais on a vu que tey euh, hier les les lion lon fait te gis nañ li nga xamante ni moom moo di tactique de jeu bi liñ ci boole tamit muy stratégie bu am solo moom mooy le jeu en bloc. Mm-hmm. tey jii est-ce que loolu moom la ñu war def ci suñu prochain adversaire yi parce que ñu ngi wax ci Égypte. Égypte wala Cameroun suñuy redoutable adversaire yoo xamante ni am na lu lu ay clé yu doy waar yoo xam ne ñooñu ci mën a génnee. ay <laughs> daf mel dafa ragal ñaar ñooy <laughs> non j'ai man Cameroun ragal naa leen. parce que mooy ñaari équipe yi nga xam ne aussi ñoo ci gën a titré ci Afrique suñu bête noire lañ Cameroun expérience également. <laughs> effectivement mais loolu loolu mooy euh, mooy enjeu bi tey boo xoolee ñoom ñii ñoom ñaar ñuy joué demi-finale bi. sa mhm. euh, veut dire que ne nekk tournoi bu. bu après lañu joué ah gars yi dañuy fàtte loolu mais ñi fi des nii mooy ñi nga xam ne vraiment dañu dañu liggéey pour euh, pour yekk si fi nga xam ne nii. parce que côté bañ nekkoon c'était pas du tout évident. si si c'était pas évident. voilà gis nañ ay Algérie ñu teel a ñibbi et tout ça ay. Mm-hmm. Euh, Cameroun nekk en difficulté contre Comores. pour mm-hmm. euh, pour qualifier wu avec des joueurs en moins du côté de de. Comores. Mhm. mais boo xoolee daal fi mu nekk nii lii ëpp solo mooy mental. Mhm. cest à fii nii si si compétition bi. staff bi seen liggéey sax dootul bëri. Mhm. Euh, c'est-à-dire seen liggéey si ay réglage lay nekk ak yooyu mais mentalement briefing loolu dootul dootul am quoi jour yi xam nañ fi ñu toll fi mu nekk nii. et que le plus important mooy ñu ñu terminer en beauté. mais nan naka la ñu war a mën a terminer en beauté lan la ñu war a indi. ci face à ñii nga xamante ni quand du ñu ñu bees suñu suñu suñu kanam on se rappelle que Cameroun dajale nañ moom ak final la ba euh, tiro but la ñu mujjee gagné aujourd'hui qu'est-ce qu'on doit rectifier ou bien apporter pour que euh, mën a am am euh, positif lu positif si ñun. mooy continuité bi ñu nekk nii rek mooy sécuriser suñu ay arrière euh, comme final final comme on dit kenn du ko jouer da nga koy da nga koy gañe mooy nekk kiy gagné mooy xam nga ki nga xam ne nekk day dafa am ay base arrière yoo xam ne yu dëgër la. Mm-hmm. te ñu gis nañ ne Sénégal. Euh, pour dugal ñu bu en tout cas fu mu nekk nii macha allah yombagul quoi. waaw ñu ngi koy wax ah bokk nañ si te encaissé wu ñu woon ba deux derniers matchs yi la ñu gis benn bu ci ne ñu am ci. benn but bu ñu bu ñu bu ñu euh, quand même bu ñuy wax ci euh, quand même défense bi également ñu ngi wax quand même mainmise bi am nañ ko ci tey ci Sénégal. effectivement alors alors tey bu ñuy xoolaat li nga xamante ni moom moo di doxalinu Aliou Cissé tey ci ci coaching am bi beaucoup de Sénégalais ne woon tey dinañ egsi ba fii. Hmm. aujourd'hui tey. ban jàngat nga war a mën a def ci eh, kii nga xamante ni moom moo diriger équipe bi. non Aliou Cissé c'est c'est le respect euh, Aliou tey boo xoolee ci suñu football en tout cas euh, depuis qu'il est en tant que joueur mooy nekk il mérite quand même euh, tey li mu nekk di vivre nii mooy c'est un patriote tu le mm-hmm. vois ci ay discours am ci ci gestion équipe bi. Mm-hmm. et pour man c'est pas un hasard tey mu mu nekk di mener équipe bi. Euh, si si lii ñu nekk nii. Mhm. après euh, c'est vrai que Sénégal Sénégal moo xaw a difficile euh, ci booy jiite si yenn situation yi surtout que nga yore groupe boo xam ne nii autant de de qualité yu si nekk ak ay joueurs yoo xam ne euh, voilà tey. ñëpp dañu gis ne nekk ñoom ñoo war a gagner mhm. donc c'est normal que ne nekk ak cofeel bi Sénégalais yi am attentes yi bëri mais il est en de faire ce que ce que beaucoup mooy nekk yóbbu équipe bi ci ci niveau bi mu nekk en tout est-ce que du fi mu nekk tam osons-le dire que y avait des erreurs quand même nag. on peut pas dire que tout rose wala tout était rose euh, ci ci coaching bi quand même est-ce que tey du ouverture d'esprit bu mu am au dernier moment déglu tamit les critiques nangu ko waaye tamit utiliser li nga xamante ni moom moo di sànq ñu ngi koy wax en coulisses les sénégalais dañu xam football même kiy jaay ci bopp euh, boppu koñ bi sax mun na la apporter quand est-ce que du tey loolu moom moo tax yenn correction yi ñu gis ko ba mu mujjee positif si ñun. non mais je pense que ne nekk Aliou euh, man en tout cas awma contact ak moom. Mhm. mais su ma amee lu ma xalaat ci équipe bi dina bind message fédération bind ko moom message sur euh, sur Instagram mais xalaatuma ne nekk nit ku ku dëgër bopp la parce que tey ku nekk ku mus a nekk joueur nekk entraîneur xam nga ne nekk tey sa ay responsabilité mooy nekk nga am ay résultats. Mhm. et que yooyu lépp li ngay xalaat ne nekk moom moo la koy jox. Mhm. si loolu ngay orienté wu. après nag. Euh, Babacar mun na ñu bokk équipe et tout ça. Mm-hmm. nga war ma conseiller mun nga ma conseiller mais après les choix. et les décisions man lay man lay man lay revenir parce que bu ñu jógee nii tey kaan bi incha allah gagné coupe bi euh, la ñuy la évaluer mm-hmm. donc euh, Sénégal nag dafa xaw compliqué ci côté boobu parce que dañu dem ba après ñu am ñun ñëpp économie nekk du dëgër dafa dëgër bopp ah. du déglu du kii mais fii boo naree déglu ñëpp après mais dëgërul woon bopp nga foofu Babacar est-ce que ça ne peut ah. bi ñu daan gis mm-hmm. ak trois derniers matchs yi bi ñu gis. catégoriquement euh, changement bu mag a mag surtout Aliou Cissé qui ose même faire des changement tactiques à partir même de cinquante wala soixante et quelques de la du du du deuxième mi mm. loolu aussi am na leneen lu muy wane ne Aliou Cissé est-ce que nekkul mu ngi doo ko jox ay nopp ñi nga xam ne aussi ñooy critiquer pour que mu am lu positif. xam nga tey euh, man loolu munuma ci dugg trop parce que awma expérience bi. c'est-à-dire ay écho la yoo xam ne de gauche à droite lay ñëw. mais en tout cas ñun li ñuy gis mooy ne nekk dangay xam nga tey boo nekkee ci banc de touche. Mm. tey da ngay jàng sa équipe. Mm. da ngay xool sa équipe ci ban euh, disposition lañ nekk mm. mentalement et que physiquement sax euh, nan nga war a defee ay changement et tout. mais ñun li ñu gis mooy tey dañu am équipe boo xam ne dañu am maturité cest à duñu paniquer. waaw du ñu paniquer quoi pour l'instant waaw du ñu paniquer non mm. depuis depuis un certain temps. Mm. du ñu paniquer quoi on voit que ne ne que euh, mu ngi jóg mu ngi jóg ci côté boo xam ne nii tey lu score bi mun di évoluer et tout da ngay gis ne équipe bi day serein. et que ah, parce que également bu xoolee ci qualification yi. Mm. Sénégal bu dugalee benn but. Mm. on se souvient très match bi nga xam ne amoon nañu ko fii ba presque dem nañ sax ba bëgg a jëlaat égalisation. Sénégal bu xasee ba mëne day am problème pour mën a maintenir li nga xam ne score bi wala pour mu dolli ko. Mm. problème boobu ñu amoon tey ñu gis ne benn changement la. quoi que l'on puisse dire Aliou Cissé c'est comme si que am na benn loo xam ne mu ngi màgg ci esprit a déglu ñenn ñi également aussi. oui peut mun nañ ko nangu mhm. mooy nekk xam nga tey tamit boo yàggee si benn affaire peut-être que li ngay gën màgg ngay gën a di comprendre yenn affaires yi après coaching gagnant <laughs> loolu. waaw loolu moom réussite la boo xam ne <laughs> réussite la voilà voilà. <laughs> Euh, fi mu nekk nii tant mieux nag pour euh, pour ñun parce que Sénégal tamit euh, am nañu potentiel joueur yoo xam ne nii tey war nañ mun di gagner sans ñuy. Mhm. ñuy ñuy ñuy sonn yenn sonn yi. Mhm. mais football moo toll fi nga xam ne nii tey. kenn mënul kenn. Mhm. donc il faut que ngay ngay gérer sa groupe. cette année démontré nañ ko. prestation bu Gambie. Cap Vert gis nañu ko. Comores surtout Comores y avait eu beaucoup de surprises quand même. ba ba yaakaaruñu woon sax ñun dinañ ak si fii. noonu la demee benn équipe ndawatul. waay mhm. kenn ndawatul. <laughs> donc mérite la ñu nekk fii ñuy si bi. et que di yaakaar ne nekk dinañu yeggali ci ni ñu ko bëggee incha allah. effective wax nañ sànq ci ay performance individuelle yu bari loolu te wuute mais bu ñu waxee équipe am na des gardiens de am na défenseur milieu terrain attaque am na fu ñu jëm ay dama la koy laaj sànq par rapport ak final bi ñan ci différentes parties yooyu nga yaakaar ne ñoo gën a toll instant bi ñu toll nii ci benn position pour soutenir Sénégal de sorte que mu accéder a la victoire finale. mooy équipe bii ñu yore. Euh, fu mu nekk nii ñoom ñoo nekk di euh, ñoo mujjee ci performance boo xam ne en tout cas ñëpp a ngi koy saluer. Euh, ah. Sénégalais yi maa leen di dégg instant yi ñuy soog a comprendre ne ñuy soog a si ne nekk Sénégal nii la war a jouer et tout ça. est que du gagné bi rek Sénégal gagné nit ñenn ñi gagné lañ xam wala yow jàpp nga ne wala yow nga ne du milieu ah. terrain Sénégal du défense du attaque côté bu ci nekk bu ne fan nga yaakaar réglage au minimum am na fa wala taxawaay bi mat yëpp mën nañ jàpp ne ok tout est ok. non fu mu nekk nii dama xalaat ne booy bu ndaw sax boo ko joxee mun na mun na ak quelques jours près <laughs> non mais c'est-à-dire xam nga dañu dañu xool équipe bi di ko suivre pendant pendant des années léegi dafa dafa nekk ci euh, ci niveau boo xam ne tey xam nañ joueurs yi kenn ku nekk li nga war a mun a apporter l'équipe bi mm-hmm. quand mm-hmm. tey boo amee benn Ismaïla Sarr ak euh, entrée bi mu def mu nekk quatre vingt pour cent sax mhm. titulaire nga koy def ci équipe bi mhm. donc pour finale bi euh, man xalaatu moom ñu am changement yoo xam ne nii tey day day jaaxal nit ñi ko mhm. parce que milieu bi lañ gis ne bi ñu commencé ak léegi mu ëpp lu ñu am ci nombre de changement loolu aussi ça montre quoi exactement ça montre que ne ne que on a des milieux yoo xam ne sorante wuñu euh, suñu ay qualité milieu terrain tey mun nga génne kii dugal kële te du am yenn différence yu bëri noonu gis nañu Pape Gueye ba mu duggee euh, li mu apporté. Mm. et que ba mu jógee aussi si suspension gis nañ ba mu duggee tamit li mu apporté. donc loolu plus la si tey euh, entraîneur boo xam ne nii da nga yore équipe euh, war ko gérer. Mm, mm. et puis Cheikhou Kouyaté bi nga xamante ni on peut dire que son jeu lu mënul manqué tey ci équipe bi la euh, ñu boole ko ak li nga xamante ni moom moo di Sadio Mané qui bouscule quand même qui crée également des occasions yoo xamante ni quoi qu'on puisse dire comme Sénégal war nañ ci bàyyi xel kooku di kon nga xamante ni moom moo di Cheikhou Kouyaté yaakaar nga ni tey si prochain match bi ñu jëm. dañ ko war a teel a dugal wala dañ ko war a mën a réserver ba ba ba li nga xam te ni moom moo di seconde partie bi ngir euh, quand même <laughs> euh, voilà mën a xam quand même parce que Sénégal des gens dans leur tête ñu ngi xool nag waaw kan lañ war a dugal <laughs> ñan lañ war a def réserve <laughs> voilà non mee xam nga tey choix bi Aliou revenir après ñun ñëpp mun nañ si am suñu suñu personnellement en tant que tant que joueur mun nañ coach maison voilà coach maison mun nañ ko waxee <laughs> mais soo xoolee xam nga tey comme li may wax sànq rek dafa am mhm. ay joueurs yoo xam ne euh, ci équipe c'est-à-dire ay ay hommes de base lañ mhm. soo xoolee si suñu défense euh, sànq yaa ngi koy wax Koulibaly mhm. su ko dara jatul normalement dafay dafay jouer Cheikhou tamit euh, boo xoolee ci ay performance am da xam ne ne joueur bu am njëriñ la si suñu équipe quand il est à cent pour cent joueur la boo xam ne sax mun nañ ne wax ne munul ñàkk suñu équipe parce qu'il est efficace dafay limité wu si liñ koy li liñ koy sant et que bu nekk da ngay soxla joueur bu mel noonu tey si sa équipe. Mhm. donc. Euh, tey je pense que ne nekk ak démb parce que dafa jël coup boo xam ne tamit un sacré coup quand même tiitoon nañu mhm. n'empêche il s'est relevé il mhm. s'est relevé mooy góor gu dëgër la c'est euh, comme Sadio Mané bañ koy demandé ne ko euh, euh, lu la jour Égypte bi son coéquipier son waaw ndax tu ndax tu pourras quand même rejouer mu ne ko bien sûr toi tu me connais donc des joueurs déterminés yoo xamante ni ñoom ñoo bokk tey et ce qui fait que même au niveau international on dit Sénégal moom mooy favori si kaan bii nga xamante ni euh, à tout moment buñ nee woon jël nañ ko tamit bu warul mën a bett kenn effectivement effectivement mm-hmm. non mais loolu fierté la tey boo xoolee booy ñu ñuy représenté fële tout sénégalais da ngay fier quoi parce mm-hmm. tu vois que ne nekk Euh, jaral na leen et que ñuy dem sax des fois si ay contacts yoo xam ne. c'est risqué c'est risqué mais loolu euh, envie moo koy joxe ak euh, ak détermination. Mm-hmm. tey moo tax ñoom ñu nekk ci position boo xam ne dañu mérité quoi dañu mérité ñoom tey mm-hmm. li nga xam ne sénégalais yi boobu ba léegi ñu ngi koy xaar ñoom ñu ñu andil ñu ko quoi. mais ci beneen question également souligné ne ko sànq. Mm-hmm. ka FIFA. presque yëpp bu ñu defee parfois seen classement au niveau Afrique ak ci bitim réew Sénégal tolluwaay bi mu ci am. ay at mu ngi nii presque mu ngi continuer ba ci ren ji gis nañu ñëpp léegi ñu ngi doog a nangu ko ni Sénégal mu ngi doog a mérité li ñuy wax sax mooy classement boobu loolee nga yaakaar ne mën na jouer ci victoire finale bi. waaw victoire final bi moo tax nag ñëpp euh, soxla ko fu mu nekk nii parce que boo xoolee au niveau du classement et tout ñu ñooy paye. mais boo xoolee ci gagné c'est-à-dire gagné trophée. Mmh. Sénégal gañegul euh, Coupe d'Afrique. Ah. donc justement léegi loolu rek moo mën a ñëw tey pour. Euh, pour fructifier en tout cas liggéey bi nga xam ne booy ñu ngi koy def et staff bi ñu ngi koy def depuis un temps. Mm-hmm. pour que tamit ñu am li ñu li nga xam ne moom la ñu mérité ci ci football bi. ci football bi effectivement. Babacar c'est bien ñu fàttali ñu ñuy seetaan nee nañu on avait déclaré Leyti njaay mais kii ñi indi kan c'est bien Leyti Ndiaye. <laughs> jusqu'à entre ah, temps <laughs> dafa dafa xaw a changé tuuti mais vous êtes en face de vous Leyti Ndiaye mooy euh, en joueur de de l'OM vraiment euh, mi ngi noonu mais bu ñuy waxee également Babacar ci kan. Mm, euh, c'est une très longue Euh, euh, compagnonnage am ak ki nga xamante ne moom moo di euh, Sadio Mané on peut dire Gana Gueye Koulibaly tey jii ñooñ ñi nga xamante ni on peut dire que seen quatrième CAN la boo xamante ni mm-hmm. war nañu wax tey am nañu expérience ak posture bu war a tax tey quand même sacre bi war a ñëw Sénégal. waaw ah. incha allah dafay dafay ñëw tey boo xoolee si Côte d'Ivoire mi mi mujjee gagné daf may daf may rappeler tout le temps ñoom seen parce que ñun dafa xaw a ñoom ñoom dañu amoon tamit génération boo xam ne. dañ ko dañ ko ut dañ ko ut lu yàgg dem des fois ba jege ko sax mais mais gagné wuñu Euh, ah, depuis yi. voilà depuis Jeux yi. donc euh, booy tamit boo xoolee boobu ba léegi euh, tu sais que ni lenn rek moom moo ñun moo leen dese peut-être seen ay euh, seen ay ambition wu équipe nationale mooy nekk ñu gagné trophée indil ko équipe bi. waaw mais expérience bi parfois mu nekk ci loo xam ne day jouer parce que finale bi également fi ñu jëm ñaar yi ñu war a mën a taseel ñëpp. ku ci ne jot nga ko joué plusieurs fois gagné nga ko également plusieurs fois. Mm. et Sénégal lan ma war a mën a nekk atum même bu fekkente nii sax ñu ngi jàpp benn côté que ne meilleure équipe d'Afrique bi loolu mën na ci am apport. waaw boo xoolee xam nga ñun bi mooy suñu deuxième finale successive on va dire 2019 ah, dañu dañu finaalu mm-hmm. ah. et boo xoolee am na joueurs yu bëri yoo xam ne bokkoon nañu ci ci génération boobu mm. donc tey euh, expérience su finale euh, war nañ ko am après am nañ joueur yoo xam ne tamit dañu tàmm ay rendez-vous léegi peut-être yu mag euh, quoi mhm. donc man si si cas bu noonu aw ma ci benn inquiétude fi mu nekk ni kenn li may ñaax sénégalais yëpp mooy nekk ñu kon ne ñaan. Mhm. ñu ñaanal équipe bi parce que gis nañ ni nekk par moment chance moo ñuy moo ñuy manqué. Mhm. depuis le temps parce que football Sénégal tey la ko nit ñi commencé di bëgg bàyyi xel ak yooyu noonu mais boo xoolee daf ñu yàgg di ñu fuir si ay détails yoo xam ne. Mhm. Euh, yu yu ñàkk fayda la. donc tey nañu ñaan tey chance bi nga xam ne moom moom la ñu ñàkkoon contre Algérie en deux mille dix-neuf tey ñu am ko euh, contre Algérie euh, contre Égypte wala wala Cameroun ku mu si munti nekk. ku mun ah, ko xanaa yàlla ko mu wax suñu président de la république biblique ak yi ku ci mën daal. <laughs> Ah, defal sénégalais ñu ci déjà man chance bi mu ko tuddee <laughs> moo ma moo xaw a jaaxal parce bu ñu fàttali ko bu baax. Hmm. Coupe d'Afrique bi ñu weesu euh, finale bi ñu joué match de poule bu ñu joué woon la mais dañu lancé woon défi. parce que coach bu Algérie dafa waxoon catégoriquement que ne équipe nationale bu Sénégal kuy dajee ak moom benn lecture de jeu bi boo ko amee moom nee na du mos a encaissé ci moom bi mu lancé ñu défi boobu réussir ko match de poule ñëwaat encore réussir ko li nga xam ne moom mooy moom moo nekk final. Cameroun peut-être c'est bien possible moom la ñuy am xamaguñu mais li mu réussir entre Sénégal ñaar yoon presque bañ a bi taxaw ay camp loolee bu fekkente ni moom moo yegg si lan nga yaakaar lañu war a mën a taxawal pour génn ci. waaw effectivement xam nga moom tamit dafa defoon communication boo xam ne tey ñu bëri dañ koy rappelé wu pour euh, pour ñun des fois dañu di sànni suñu bopp ay xeer. <laughs> waaw ñu bëri dañ doon wax ma di dafa ah, gagné parce que voilà mooy détails yi may wax tey te xam nga comme football. Mhm. dafay am day toll ci moment yoo xam ne euh, expérience def si def si baax. ah dëgg la waaw expérience daf si baax quoi te booy gis naa ne ne que tey euh, li leen andi fii expérience daf si am. part bu bari bari bari. Mm-hmm. mooy nekk dañuy serein xam nañ ne nekk moment bi ñu war a bi ñu war rey équipe dañ koy dañ koy def boo xoolee ci ay euh, demi-finale quart de finale et tout ça mm-hmm. équipe buy gagné trois 1 euh, gëj na fi am. Mm-hmm. donc loolu mooy prouver ne que booy xam nañ ne nekk fi ñuy fi ñuy dominer équipe. actuellement xam nañ ne nekk foofu la match bi di jouer c'est Euh, foofu la match bi di jouer e que ñoom ñu ngi ñu ngi def ce qu'il faut pour euh, pour mun a gën gagner match bi donc loolu la ñuy xaar ci finale bi mm-hmm. pour que opportunité bu ñu mun ti am ñu mun ko saisir pour pour mun a gagner équipe bi nga xam ne en tout cas. moom comme disait Kouyaté euh, ça ne se ça ne se une finale mais ça se gagne. maanaam lu ñuy wax soxlawuñu ñuy rafetal soxlawuñu quand même ñuy xool na na na bal yi dugg. Mm. mais à condition que ñu euh, indi stratégie de jeu boo xamante ni quand dina mën a affaiblir euh, suñu adversaire mais am na seet seetlu bu ma def Babacar xaw ma ndax am nga ko. Mm. mais c'est comme on dirait tey suñu Lions yi dañu ñëw avec la tête que on peut faire mieux que génération 2002 parce xool euh, tey même dañ leen di rendre hommage on a vu euh, di saluer loolu ñu def euh, Pape Bouba Diop mi nga xamante ni ñu ngi koy fàttaliku mais man su ma ñëwee foofu yow suivre nga match yi en 2002 ak équipe bi fa nekkoon tey booy def comparaison bi ak ñii nga xamante ni gis nga ko lan lay doon waaw comparaison xam nga tamit pour def ko si yenn situation yi day xaw metti mais lépp li ci mënti am rek tey dafa am ay référence Euh, c'est-à-dire booy boo xoolee seen ay références ñooñ la ñuy saluer de passage euh, euh, ni ñu ni ñu siggilee tey sénégalais yëpp laay wax parce que buuba tey bu buñ ko rendre hommage boobu sénégalais yëpp la ñu rendre hommage tey fële mu nekk xam naa yàlla na ko yàlla xaare ci àjjana yi gën a kawe xam naa tey buñ ko buñ ko andiloon coupe bi tey dina bokk si li nga xam ne nii moom la moom lu koy neex lay nekk. Mm. donc loolu la rek mooy ñooñu ñoo jox tey euh, envie bi nga xam ne ñun tey ñun ñi nekkoon euh, ay joueurs après ñoom ñëpp dañu bëggoon def comme ñoom. donc loolu moo tax tey génération bi ñu war leen ñaanal ñoom ñu gagné. et puis mu nekk benn cycle boo xam ne après Sénégal day day gagné ay coupe d'Afrique yu yu bari bari bari. mais forcément war na am au niveau faiblesse wala boog euh, force. quand boo xamante ni dina am ci bon bu ñu xoolee différence ci entre euh, ces deux équipes là euh, bu ñuy xool. la présence de Elhadji Diouf Henri Camara cette Fadiga. équipe cette cette belle équipe euh, ak euh, Fadiga euh, on se rappelle bien Diomansy ah, Camara tey on parle de Sadio Mané bi nga xamante ni en un moment dañ ko doon rivaliser ak ki nga xamante ni moom moo di Elhadji Diouf même si que am nañ des point yoo xamante ni nekkuñu ko en en commun mm. donc foofu on peut quand même génne quand même xool force faiblesse euh, yi c'est-à-dire foofu laay waxee quoi mooy nekk euh, génération yi bokkul et que mm-hmm. football bi dafa dafa évoluer mm-hmm. dafa évoluer bu baax a baax a baax mm-hmm. donc ñëlee mérite bi ñu amoon tamit mooy nekk euh, tiire nañu équipe bi ci ci ci ci niveau yoo xam ne tey en tout cas Afrique mondialement sax ñëpp ñoo ñoom ñoo tax tey ñun ñu xam ñu on va dire donc foofu ñu yóbbu équipe bi moo tax tey engouement bi nga xam ne nii tey booy dégagé nañ ko aussi ah, Euh, affaire bi dem foofu. mais amul amul différence c'est-à-dire football ci état d'esprit même bi lay mus a nekk. mais tactiquement. mën nañu comprendre question aide bi tactiquement techniquement. Hmm. évolution football peut-être comparaison bi lay jafe. mais question engagement war nañ mën a am benn comparaison minimum par rapport aux deux équipes. waaw xam nga tey équipe bu nekk dafay am euh, ADN day am. Euh, identité boo xam ne tey boo demee réal de Madrid boo demee championnat Espagne. Hmm. kii nu mu tudd Real. Atlético de Real Atlético Madrid. voilà Atlético de Madrid euh, pardon ñoom seen euh, seen identité ñëpp xam nañ ko léegi xam nañ ne nekk engagement mooy mooy tax tey ñoom résultat bu ñu munte am ñu am ko. mais ñun tey dañu am ay joueurs yoo xam ne ils sont ils sont capables de jouer dañu dañu mun football. dañu mun dañuy pro si production bi. Mhm. et que même si génération yi di ñëw di nga gis yeneen Sadio Mané ah parce que dafa am ay infrastructures yu changé au niveau local. e que da nga gis ay centre de formation yoo xam ne léegi dañu gën a bàyyi xel ci loolu dañuy dañuy léegi ay boo yoo xam ne boo jëlee Bamba Dieng mu jóge fii jàmbaar dem directement Marseille euh, nekk fa potentiel tutélaire loolu ça veut bu veut diir dire Pape Matar Sarr jóge fii directement dem déjà signé même à Tottenham, à Tottenham. Ouais. donc loolu c'est pas du loo xam ne dañ koy négliger mm-hmm. après c'est vrai que ñële loolu la ñu mënoon di utiliser pour que mu leen di jox euh, résultat yi nga am ñi nga xam ne moom la ñu am mais ñun plus les qualités qu'on a footballistiquement léegi da nga gis ne nekk tamit engagement bi tey kenn du ko reproché booy. <laughs> engagement moom ah. au début on disait que il n'était pas engagé du tout au début début CAN bi. loolu lañ doon wax mais on peut comprendre que euh, qu'on avait une équipe B comme disait Aliou Cissé. Mm. avec des joueurs yoo xamante ni ils n'étaient même pas expérimentés. Mm. Euh, mais tey am na benn question bu mu la bëgg a laaj est-ce qu'on peut dire que Sénégal euh, comme di al. Samba Samba Al Amin Bara ma jottali la ko euh, Sénégal bañ doon jouer ba nag nii ay euh, équipe yu ndaw lañ doon lañ doon lañ doon jouer final bii la ñu mën a jàkkaarloo ak équipe bu mag donc du yomb si ñoom est-ce que loolu mën nañ ko nangu. waaw équipe yi euh, sànq tontu nga ko sax yow. est-ce <laughs> bu ndaw on va dire amatul. Mm. surtout si stade bi ñu yegg ci compétition bi. tey mënuloo tase ak équipe boo xam ne da nga koy manquer de respect équipe bu mu munti nekk boo taseeg moom tey di nga ko jox gëdd bi mu war a am pour jouer en tout cas match final ñun loolu la ñu xaar suñu équipe tey boo xam ne ne que image bi muy wane depuis le début et que ñuy monter en crescendo ba yegg si fii nii nii dinañu am li nga xam ne moom mooy détermination pour que ku mu munti nekk entre Cameroun et Égypte encore une fois. Mm-hmm. ñu war a mun a jaar sa kaw. bi. question bi mu posé également question expérience bi war nañ ko ci mën a bàyyi xel. effectivement expérience mooy gagné. waaw expérience bi également mooy nombre de trophées remportés ak nombre de compétitions également. effectivement loolu loolu mënuñu ko mënuñu ko bañ a jël en compte. c'est normal. justement loolu moo tax tey euh, ñun ñu war a gagné. parce que boo xoolee ne ne que équipe yooyu yëpp euh, mënuñu ñu. seulement dañu am lenn benn brin de chance chance bi may wax sànq Babacar bu ko dégg. Mhm. chance dafa bokk tey ci euh, ci aspect yi nga xam ne ci sport en tout cas dafay dafay déterminant dañ koy créer tamit chance mais euh, lu loo xam ne la nii tey mënul ñàkk tey ci football et pour nga gagner tamit il faut un tout pour que yooyu yëpp euh, mun a. mun a daje pour nga gagner. toutes ces conditions sont réunies. waaye. En, tant que défenseur man bëgg naa euh, wax tey suñu défense euh, naka nga koy jàngatee ba ci de manière globale tout à l'heure yaa ngi wax que ni nous avons une très bonne équipe mun nañu demee euh, ci façon bu ñu doon demee mais tey en tant que défense boo xoolee tey suñu défense lu ñu jot a produire durant toutes ces matchs tous ces matchs à temps pour moi alors tey naka nga leen mën a jàngatee y a des choses à rajouter à maintenir ou bien y a pas de daal warul. non am nañ suñu défense ah suñu défense euh, titulaire impec xam nañ ko léegi ah Saliou Ciss la Abdou Diallo Koulibaly et Bouna hmm. donc boo xoolee défense boobu xam nga ay joueurs de renommée ñoo fa nekk quand même hmm. yu am bu tey et que loolu dafa dafa baax ci équipe tey tey ñun li ñu gën a rassuré mooy hmm. tey si compétition bi yëpp même su fekkee par moment on a mal joué encaissé wuñu ay but donc loolu garantie la yoo xam ne nii tey équipe bi gagné dafa war am garantie yooyu noonu pour que mu mun a. mais ci beneen couloir ba am na kenn ku fa nekk également maa ngi wax sànq Abdou Diallo mais mm-hmm. moom tam bokk na ci muy Bouna Sarr. Mm. depuis début compétition bi joué presque même poste parce que dañu amoon absence mais li muy joué ci couloir boobule ak taxawaay bi mu am adaptation ci équipe nationale bu Sénégal ñu bëree bëri ñu ngi doon douté wu ne est-ce que c'est normal que Aliou indi ko ko amul compétition et puis nangam nangam mais tey li muy wane. ça te quoi en tant que joueur. c'est un grand joueur xam nga tey mënoo nekk Bayern de Munich après ñuy douter ci sa ay qualité wala sa ay euh, li nga li nga li nga mën. Mhm. donc euh, fu mu nekk nii comme li may wax sànq rek dafa bokk ci groupe boo xam ne nii en tout cas groupe bu homogène la. Mhm. Euh, les joueurs s'entendent très très bien. et que moom tey li mu nekk di def nii moom moom la war a def. Mhm. et que sénégalais yi wat ci euh, war ci profito. muy joxe tamit yeneen message yoo xam ne nekk tey ñun Sénégal. suñu jeu dafay dafay basé wu souvent ci ci côté yi. ñun équipe lañu yoo xam ne euh, depuis le temps. voilà si côté bi ñun suñu football yëpp si côté si côté la mus di di di évoluer. performance yooyu également benn côté. bëggoon naa ñu dafa benn taxaw seetlu parce que bu dee Saliou Ciss la ni muy remonté parfois dinañ gis ne léeg-léeg mu am ay conséquences yu xaw a yu xaw a doy mm-hmm. euh, bu dee Bouna Sarr de l'autre côté mm-hmm. mais ak Sénégal ni muy étalé au milieu de terrain jàppoon ne loolee benn côté également risque la bu mag a mag. risque la mais boo xoolee mooy mooy tey garantie yi may wax au niveau du milieu. tey tey loolu moo tax peut-être que ñun suñu ay joueurs du ñu projeté wu euh, régulièrement. bu mhm. xoolee Nampalys du sori côté boobu. et que Abdou Diallo. voilà mu ngi taxaw si sentinelle bi quoi. Mm-hmm. jour de devoir la boo xam ne tey bu am njëriñ la si suñu équipe euh, Nampalys Mendy mm-hmm. après Abdou Diallo ak ay qualité mais tout moo tax tey muy muy combler des fois euh, retardu euh, Saliou Ciss mm-hmm. mais mais voilà équipe la boo xam ne en tout cas équilibré na trop pour que pour que nga mun ñu inquiéter. si ay phase de jeu yoo xam ne nii nekkuñu en nekkuñu en place. bëggoon naa également nga ñëw techniquement ci suñu adversaires yi ñaari potentiels nga leen a seetaan. mais seen football yëpp mooy une animation de jeu au milieu terrain fa la ñuy créer doo ko def sur les côtés wala ñu ne en profondeur pour doo ko jouer. Mhm. Sénégal war ci taseeg ñenn ci ñoom tey jii loo gis ne moo war a mën a nekk tactique bi ñu war a taxawal bien vrai mën nañ conduire même équipe pour gën a moytu yenn yi parce que lépp ci digg bi la également. si digg bi si si parce que foofu ça joue régulièrement foofu foofu lay xewee quoi mooy c'est-à-dire milieu terrain mooy stabiliser défense. waaw ku mel ne Cameroun benn Franck Anguissa. Anguissa oui rafle tout. Mm. c'est un bon joueur ni au niveau de l'Égypte également ñu taxawaay boobu ça demande autre chose. si si euh, bu bokkul ak yeneen dégâts <laughs> no mais xam nga loolu loolu tey. point la boo xam ne euh, yow mi seetaan football xam nga ne ne que tey point la boo xam ne c'est sûr que suñu staff dinañ si dinañ si liggéey dinañ xam ne ne que euh, du joueur yoo xam ne da nga leen di bàyyi ñu jouer pour que ñu lay mettre en difficulté après ñun am nañ répondant quand même am nañu répondant au milieu bi ñuy wax sànq ak Cheikhou Kouyaté dans ses meilleurs jours Pape Gueye gànn Gueye qui qui peine peu si ci ay performance am euh, dans ses meilleurs jours il est capable de xam nga de arrêter d'arrêter yenn euh, yenn évolution écrit mm-hmm. adverse bi mmh. mais man en tout cas j'ai pas de j'ai pas de doute xalaatuma ne nekk en équipe fu mu nekk nii waxuma au niveau d'Afrique mais équipe mun nañu malmener di ñu di ñu di ñu teg loo xam ne nii tey ñun attanuñu ko. gëmatoo ko non gëmuma ko optimiste bi muy wax ne il est trop trop et hyper optimiste loolu loolu la ñuy gis en tout cas y' y' a rien à rajouter rien enlever tout est bon. tout, ok. tout ce qui reste moom mooy ñu dem jouer match bi gagné ko et remporter la coupe et indi ko fi. Euh, euh, Babacar balaa ngay ñëw sa question et rappeler que avec euh, toujours ci générosité bu suñu kon numéro dis bii di kii di Sadio maane offrira cinquante supporters ñu mën a ay billets d'avion ñu mën a dem seetaani sonon Rahma Ousmane moom moo wax lu ni mel ñu mën a seetaani la finale également mu promettre beneen lot encore sa générosité bi ñuy gisaat tey si si Sadio Mané. l'enfant de kese rek la personne. <laughs> Mhm. en maanaam en dehors du terrain. waay euh, ban gis-gis nga ci am. au-delà de li mu lu ma souligner sànq comme cadeau mën nañ ko jàppee noonu. boo xam ne aussi yàgg na ko wéyal. non mais respect franchement fierté que moom nga koy xool image am nga xam ne kii sénégalais la. Mhm. donc si ay ci comportement am si ay propos am euh, voilà il vraiment euh, ñun daal dañu kontaan trop si que tey que Sadio Mané tey mooy suñu joueur euh, phare démb gis naa ko après match bi mu accolade entraîneur Burkina bi. waaw après le match man jot naa Kaboré. Euh, benn Burkinabé boo xam ne jot nañu jouer ñun ñaar Marseille. donc geste yu moom daf ko daf ko rafetlu ba nga xam ne. dafa dafa dolli ñun suñu respect tey bi ñu bi ñu ñëpp di xoolee. Mm-hmm. Sadio Sadio loolu la quoi franchement. Euh, li mu mérité la nekk di am nii. Mhm. et que ñu yaakaar ne bon voilà dina dina yóbbu au sommet. en mhm. tout cas équipe bi nga xam ne nii moom la nekk di. Mhm. di yóbbul boppam quoi. voilà donc ñu ñu dellu si waat ci ci ci compétition bi ak lu ñëwal aussi Cameroun benn question bëggoon naa comprendre mooy ku ci mel ni Vincent Aboubacar nga gisaat encore ku ci mel ni euh, Tokoy Ekambi ñaar ñooñu lay ci kanam seen création offensive. nga yaakaar défense su Sénégal ci benn côté war na ko mën a dékku. waaw c'est vrai que ay joueurs ay joueurs yu baax lañ loolu loolu kenn mënu ko nii mais ñun tamit derrière am nañu am na ñu répondant boo xam ne nii tey euh, euh, ñooñu mun war nañ ñu mun a bañ a inquiéter. Mm-hmm. Euh, voilà su ñu nekkee ci continuité bi nga xam ne en tout cas moom la moom la équipe bi di wane depuis le début. Mm-hmm. donc je pense que ne nekk. Euh, waruñu am crainte bi nga xam ne nii tey par rapport ak abu euh, Aboubacar wala Anguissa wala ku mu munti nekk au niveau de xam nga fii Afrique quoi. je veux dire tey li ñu gën a amal importance pour ñun mooy tey ñun suñu équipe si yan situation lay nekk euh, jour finale bi. Mm-hmm. et tey est-ce que jeu du football yi comme li ñuy wax. <laughs> tey ah, pour bu ah, ñuy fuir boobu ba léegi. <laughs> seront avec ah. ñu ñu yeewi askan bi ñu yeewi askan bi vraiment parce que tamit <laughs> askan bi sonn na. <laughs> vraiment mais ñu ñuy gën craindre Babacar. bokk na ci Cameroun. ba Sénégalais booy xool bëgguñu sax Cameroun tey mu gagné ce match. quand parce que gis nañu tout au de la CAN seeni pexe yi ñuy doxal quand pour pour pour mën a freiner yenn. Euh, équipe bi euh, voilà ba gagné leen gis nañ il gagne avec la manière. quand même quoi qu'on puisse nañu benn Égypte bu dem ba suspendre li nga xam ne moo nekk entraînement pourquoi parce que nee nañ gis nañ benn drone boo xam ne du doon sillonné autour fi ñu doon entraîné ci la entraîneur bi décidé suspendre lu jëm ci seen entraînement te au delà de ça aussi am na loo xam ne jiitu na ko. mooy les mm. cas positifs yu indi polémique au niveau des adversaires comme Comores et du genre. Mm. loolee nga yaakaar mënul nekk aussi benn mbir boo xam ne mentalement mën waaw mooy xam nga mooy pays organisateur tamit euh, tey c'est vrai que euh, domaine yooyu yëpp ñun de l'extérieur en tout cas xam nga mënuñu ci am yenn euh, yenn vision yi. Hmm. après CAF tamit pour man organisation la boo xam ne tamit ndawul pour que ñuy ñuy am ay doute si ci ñuy war a kii sinon Afrique ñu ñu arrêté léegi léegi. Mm-hmm. loolu <laughs> loolu moom. Mm-hmm. dafay dafay dommage. ba nga xam ne voilà aussi désirer quand am na équipe yu bëri yu ko décrier mais mm-hmm. franchement man j'ai même pas envie ma toll fii si parce que après tout on est des Africains. am na loo xam ne nii tey man sama sama gàcce la quoi ñuy organiser loo xam ne lu toll ne Coupe d'Afrique. Euh, voilà ñuy am ay yenn manquement yi. c'est c'est vraiment dommage. mais bon ñiy ragal Cameroun c'est ça peut se comprendre parce que seen dëkk la. et ñoom ñoo organiser. donc buñ naree tase ak ñoom final c'est normal foofu la la tension bi di ëppee mais li xew si si dimanche la si match bi bu arbitre bi sifflé la incha allah et que ñun euh, yaakaar nañ ne ne que que mu nekk Cameroun wala mu nekk Égypte mm-hmm. am nañu ay joueurs yoo xam ne préparé wu nañu en conséquence pour mun a jouer match final et que gagner ko si manière bu mu munti nekk. Euh, mm-hmm. benn kàddu yu ma dégg mu wax moom Vincent Aboubakar capitaine bu Cameroun également meilleur buteur de la compétition. Mm-hmm. Mohamed Salah ne m'impressionne pas beaucoup loolu nga yaakaar nekkul ci manque de respect par rapport à un adversaire waaw c'est ce c'est son point de vue xam nga tey après tamit dafay am bataille euh, psychologique boo xam ne tey joueurs yi dinañ ko dinañ ko defante mm-hmm. mais moom bu tëddee moom kese wéet dina xam ne ne que Salah la boo xam ne reconnaître nañ ko mondialement. Euh, donc moom pour man loolu loolu loolu c'est personnel li muy def noonu nekk dafa war a jouer si si bopp kii bopp salaa mm-hmm. koo gis ci ci ñoom ñaar koo yaakaar ne fu mu toll nii li nga seetaan naa seetaanaale li nga gis effectif ak tamit wàllu jeu tactique technique et tout moo war a mën a génn. si ñoom ñaar. waaw non franchement match bu match bu doy waar la. rarement la toll mm-hmm. si situation boo xam ne nii tey li ñuy wax ku ku teel a wax danga tani. waaw gars yi ah <laughs> non ku teel a wax mun nga am lu la bert trop ah. parce que match la boo xam ne hmm. temps Égypte euh, comme sànq yaa ngi koy yaa ngi koy no euh, souligner dañu am expérience su Coupe d'Afrique c'est pas parce que dañuy dem Cameroun le match bi ne nekk du ñu préparé wu en conséquence hmm. et que Cameroun aussi ak euh, engouement bi fa am yëpp instant yi match la boo xam ne tey ah tension la hmm. après ñun. que. voilà yooyu yëpp ay plus la yoo xam ne. ñun daal en tant que finaliste ñu ngi ñaan que le et que ñun ki ñuy tasal ñun ñu nekk le meilleur euh, le jour J incha allah. waaw ah, eh, comme que am nañ chance que amuñu benn blessé également on a quand même 72 heures 48 heures. waaw le temps que ñu mën a observer match yi quand même xool yi ñuy rectifier des choses à apporter ak yu ñu mën a jël comme atout vraiment on a cette chance la xanaa di ñaan kay les dieux du foot euh, soient de notre côté. voilà ñu egg suñu suñu euh, jeexintalu émission amoon nañu bu baax. mbégte ñu dalal tey nga def un peu analyse ci li nga xamante ne moom moo di match bi ñu génn ak yu ñuy dëgmal alors ñu bàyyi la nga tàggatoog ñu ñu doon seetaan. Euh, di kontaan trop merci beaucoup euh, Aïda. Mm-hmm. Babacar di kontaan si invitation bi. di euh, di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñu ngi ñu doon seetaan. Mm-hmm. di yaakaar trop ne lépp lu ñu fi wax tamit pour pour pour defar la. et lu ñu fi wax tamit loo xam ne nii am na ne ñu ko gisee ñu mhm. ñu xam ne suñu matadi la mhm. donc euh, di ñaan yàlla rek li nga xam ne nii tey moo moo préoccupé sénégalais yëpp mhm. mooy am ndam euh, dimanche incha allah yàlla defal ñu ko pour que Sénégal bi ñu gis démb mbégte boobu continuer sax Sénégal incha allah. alors Babacar. voilà amoon mbégte bu baax a baax di partager ak moom plateau maa ngi découvrir la personne mais macha allah <laughs> donc di jaajëfal ñëpp ñi ñu doon seetaan di ñaan suñu borom may ñi également victoire boo xam ne bu sedd guy la dala doon ci kanam ku mu ci mënti doon ci ñoom ñaar. ndax comme ni ko Aliou Cissé waxee on a les moyens également on a l'effectif di ñaan aussi mu nekk loo xam ne victoire finale lay doon lu ñu am désormais hmm. et enfin Sénégal mën a yëkkati coupe d'Afrique ne ko coppet bi foofu ñëw ne ko kopp <laughs> le mental comme le dit euh, <laughs> l'ancien international sénégalais Leyti voilà, qui est voilà, très optimiste <laughs> alors ñaan rek yàlla nangu ñaan yi ñu jël enfin coupe bi ñu doon xaar euh, génération yi ñu jiitu génération yi suñu douzième gaynde également félicité leen euh, Allez Casa également euh, kon di leen rek remercier yéen ñu doon suivre ñu jàppoon ci technique bi également di leen jaajëfal di leen jox dig daje ba lundi incha allah ñu ñëwaat ci ultimatum ak ay ganam